pour qu'on parle de dialogue national il y a il a ce qu'on appelle c'est infaisable il y a pas des éléments cognitifs yuy permettre ñuy dialogue ji xamul tax parce que ce qu'on va leur ci dialogue bi d'arrêter la violence et l'insolence ils vont pas pouvoir la laisser. d'accord d'accord euh, ouais, rapidement waaw léegi la dernière phrase qu'il a utilisée. Mhm. du ñu dem jalo ak ñëw donc wane na position. comme ni ma ko li ma ko bëgg waxal mooy lenn. il dit que nous, nous sommes violents. Demandez-moi, dites-moi, une seule fois, où des gens de PASTEF mm -hmm. quelqu'un, ont frappé quelqu'un, ont insulté quelqu'un. ñoom dama lay wax ni toujours c'est la même chose. c'est-à-dire que. faut pas le couper faut pas le couper faut pas le couper. très bien d'accord très bien. non non c'est enquête lañ nekk on est te man bëgguma bëgguma ñuy daggante parce que finalement après. kenn kenn du xam nga tax ma ah, ma bëgg. Mm. parce que une personne pareille avec son esprit mënul bokk Pastef on passe pas comme lui wallahi on passe pas comme lui je ne suis pas sûr que lui son mouvement bu remplacer woon Macky je serais aussi radical pour wax ne du ma masa ànd ak moom dama koy observer. xool lu muy doxal en fonction lu muy doxal ma xool nga damay ànd ak moom ak déet nous ne sommes pas violents nous n'avons jamais été violents mais nous on nous pousse à réagir on ne parle que des réactions on ne parle pas des causes. maanaam li Ousmane Sonko di wax dañu ñu sonal. li Ousmane di wax ne muus sax boo ko poussé ba ci mur bi. day day rebelle mais là xam Sénégal benn vérité moo fi nekk. nañu ubbi suñu bët ñu xool ko nit lañu jàpp singili ko sonal moom ak ay ñooñam ñu dem ba ci muru wis bi ñuy réagir tout <laughs> leneen te nag xoolal ñun sox <laughs> je lui dis tout de suite et devant lui hmm. que kii mënul nekk Pastef des deux côtés des deux côtés ah doyen mënoo ko c'est